nañ leen takku jug taxaw ndax Sénégal jar na ko ci ay kàddu yu ni mel la njiitu Pastef bi ndar képpe bataaxal boo xam ni mi ngi ko jagleel sénégalais yi Ousmane Sonko di wéy di sàkku ngir yoon teg gi loxo ga mu ko teg teg gi ñu ko teg loxo Ousmane Sonko daal dinay xamle itam ne la tax a jug nguur gi mooy fexe rek ba te mu bokk ci élection yi ñu dëgmal ci atum 2024 ca noonu itam daal di ndar képp prise de conscience boo xam ne sénégalais yi tàmbali nañ ko am boobu ba léegi te la koy firndeel suñu sukkandikoo ci Ousmane Sonko mooy ndiiraan ga koy topp saa yu génne ci boobule bataaxal itam ma nga fay sàkku ngir ñu bàyyi yeneen détenu yoo xam ne dañ leen tee jamono ji ndax nee na seeni njaboot loof nañu Ousmane Sonko ma ngay xamle ne jamono ji li nguur bëgg mooy fexe rek ba imposer ñi di sénégalais yi kandidaa boo xam ne dafay wëyal liggéeyu Macky Sall bi tey ji nag ndaw ndawu Sénégal yu bëri di wutali géej gi te suñ sukkandiku ci Ousmane Sonko dara waralu ko lu dul yaakaar bu tas te nee na dafa mel ni nguuru Sénégal loole dafa ci ànd ba tax na jéemul def benn jéego ngir dàkkal ko ndax nee na nguuru Sénégal jamono ji ca loolee rek la mën a porox ndollu ba jële fi ndaw yi yépp yoo xamante ne yi ñoom ñoo mën a tax ba bu ñu demoon ci ay élections ñu mën ko ñàkk. ci boobule bataaxal nag Ousmane sonk mu ngi sàkku ci ñépp ñoo xamante ne ñii dëgg moo leen ñor fépp fu waay nekk ci biir réew mi nga jug taxaw def li nga xam ne mooy résistance bi la yoon may ñu bàyyi ko waaye itam bàyyi ñeneen ñi ñu téye di càkkute kilifteef boo xamante ni itam kuréel gi dajale cadre Casamance yi daal dina koy sàkku njiitu réew mi collectif bi di xamal Macky Sall ni ko donte Ousmane Sonko adversaire am la ci wàllu politique waaye teewul rakkam lay mës di doon te du mësa doon noonam ñoom ñu jàpp nag ne màggaayu kilifa dafay ajo itam ci man manam ci jëlale ca noonu nag la ñu daal di sàkku ci njiitu réew mi ngir mu daal di jëlale loolu rek a mën a tax mu doon modèle générationnel muy loo xamante ni ñu ngi ko jëlee ci sunu ay maam te mu doon loo xam ne moom moo saxal jàmm ci suñu réew mi le